Mbacke mi jàkkaarloo ak Mbacke Ndiaye di ndaanaan di mbokkum yaayu Ndeye Gueye di sama mag mbokkum yaayu Saw Aïcha ñu gis fa ni kii di ah, Demba def déclaration am nee na yéen a ñëw fonk si leen loolu laa njëkk a nuyoo yow ndax nga ci. mbaam nga jàmm. maa ngi sant yàlla <laughs> bu ñu toog ñun théâtre kat yi ah bul doon théâtre kat yi kenn ngi dafa cinéma ma théâtre kat dañuy cinéma Pendo sama mag la sama xarit la maa Pendo dafa neex. mbàcc ñu gis tey ala di xale macha allah nekk tambour major di sëtu seng seng ñu gis tey nga dagg lépp ak temps ni mu seeree ñëw fii ci Medina yan relation nga am ak ala. waaw jàmm salaam relation yi yan relation yi salaam ndax ku ne xam na ne man. seng-seng sama kër la yàgg naa fa dem doon seet ñoom joli maman jabaru Fallou sax ah, la sama léegi tax na jigéen ñi nga xam ne may jaay gaasu kii toog sama ginnaaw jabaru Ndiaye Fall sama yaay la sama xarit la ah, kër googu ah, kër googu ñu xale yëpp ñu ngi kon man seen sama kër la Allah sama wax sama sama ko bàyyi léegi léegi incha allah bu boobaa ñu ànd ko ak yow ba mu neex waaw dama leen di woo ngir ñëw yéen ñoo fàq kontaan naa ci merci beaucoup.